jërë ngeen jëf mbokk yéen tax Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé lépp lu xew ci réew mi ci bitim réew wax ci radiation bu Ousmane Sonko ca liste électorale ya mu mel ni nag ni ki tey procès ba ca tribunal bu Ziguinchor yàggoon loolu avocat yu ca nekk rek di plaider mu mel ni nag mbir yi daal dinay féete boor gannaaw ba nga xamante kii di juge ba daal dinay ordonné rek ñu annulé bi les radiation bu Ousmane Sonko ca liste électorale ya loolu nag muy firndeel rek dëgg ga nga xamante ne juge ba daal dina koy jox ñii di avocat Ousmane Sonko gannaaw requête ba nga xamante ne daal nañ koy rek def ci bile recours nag ñu nga nekkoon ca procès ba gannaaw cour suprême ak la nga xamante moom la ca daal amal ni ki tey tribunal bu Ziguinchor ñoom rek ñoo mënoon a tranché la daal di rek joxe verdict ba mu mel ni kii di Ousmane Sonko dinañ ko réintégré rek ci liste électorale ya gannaaw kii di juge ba la mu daal di ordonné rek mooy ñu daal di annulé radiation ba nga xamante ne defoon nañ ko leader bu Pastef di Ousmane Sonko mu mel ni nag ndam lañ ca daal di jëlee ndax diwaanu Ziguinchor gis nañ nag askan wa nañu daal di génne rek di jubilé ci verdict ba nga xamante ne kii di juge ba daal na koy jox rek Ousmane Sonko.